famille maire Barthélemy Diaz jël na leen rawale leen laq autorité sénégalaise président de la république ba ci suuf ba fi may wax ak amul kenn fa pour cette famille yi forfaiture bi tollu na ci no xam adina yep yëpp naqarlu nañ ko diaspora bi yep, ku ne bu goudé nit ñi duñu nelaw ci ay live la fanan, parce que li Sénégal daf ko mérité wul Sénégal dañ ko doon xolé pays modèle tay ji Sénégal wàcce na bopam ndax lan ben lobby bu ndaw ay autorité militaire yoo xam ne wàcc seen ànd jóg xooluñu lu dul seen intérêt bopp xoolatuñu seen intérêt askan muy lu ruslu te ñun ñëpp kenn nekkatu ci en sécurité ñu ngi ñun ñoo représenté waa Excelec ñu ngi wax si turi waa Excelec ñëpp parce que collectif bii nekk fii nii ay jeunes lañ Excelec moom moo nekk ex Mina ex Mina mooy Mina distribution entreprise boo xamante ne ñoom ñooy defar poteau en béton armé depuis fin 2015 lañ ko organisé mais entreprise ba léegi réglementé wuñ ko ouvrier yaa ngi fa di liggéey poteau yi nga gis si àll bi yëpp ñoom ñoo ko liggéey mais boobu ba léegi seen ak ak seen yeleef kenn joxu leen ko ouvrier yoo xamante ne ñoo ngi rey seen bopp dëgg ba bëccëg mais ñu ma wuñu sa wax ñu boole leen ak benn gaynde mu naa pap leytu juuf moom moo nekk si biir usine bi lu ko neex def lu ko neex wax kenn du yëngatu ku yëngatu mu licencié la ku yëngatu mu dàq la ku yëngatu mu wax sans droit